troisième face à face bi arène nationale la woon mooy bi ñuy wane malik Thiandoum di ko caricaturé ne Tapha dafa ponkal Malick Thiandoum dafa tuuti Bécaye mbay ak Malick Thiandoum ñoo doon def face à bi man maa doon def direct bi. barki démb invité naa Baye Ndiaye ci télé bi. mu toog wax làmbam yëpp jongante ànd ak papi bu Buzz Pro. kon promotion. bés bi kenn appelé wuñu ci ñun Futurs Médias def na suñu waru gar loolu yëpp mm. weddiw ma ko baax na c'est bien mm-hmm. mais moom man nee naa Baye def na lu rafet dem naa mu jox ma trois accrédit tamit fekk ma sa ko fan mooy sa mu may tegtal ba ma yegg si mm-hmm. ma yegg si gaare mu ne ma bul wàcc sama oto ñu ànd ak moom mu repéré oto mu ñëw ma soog ne ma yow ak sa ñaari caméraman yëkkati ñetti billet jox ma ko ñetti billet yu trente mille franc jox ma ko may ma ko ma dox ko sama waa kër ñu dem ci làmb ja mais buur bés boobu bu ma bu ma bàyyi njaay ne woon Lamine am ji fii ak six mois jotul amoo droit teg làmb ji fii un an jotul kon su may dem làmb ja dinaa xam man nan laay demee làmb ja buñ ma wax waxu Birane Ndour ndax Birane nekkul ci terrain bi buñ ma wax waxu Cissé Cissé nekkul ci terrain bi man may nekk ci terrain bi bàyyi soxla na ba tay ci télé bi man ma lijjanti ko taw tàgguwuma Birane tàgguwuma Youssou Ndour loolu yëpp garaawul ba tey mais su ma ma direct di def suma émission ba commencé teg back teg entre lutteurs yi ma woo Aziz Ndiaye parce que dama dégg ni combat. Eh, Ama Sène ak Balla Gaye taxaw na man maa jël sama ko Aziz sawa rak mu ne ma waaye grand sawa ma ne ko félicitation ma ne ko dama bëggoon jël na en direct mu ne amul problème rappelé waat ma ma jël sama numéro Aziz jox ko technicien bi pour mu woo ko technicien bi woo ko jëlul ma woo Aziz ne ko Aziz mu ne ma da nga jël en direct ma ne ko waaw mbaa du da ngay teg lamb ji ma ne ko waaw mu ne ko boo mu ne ma boo ko tegee ñu dagg sa signal parce que waxante wuñu woon ak yéen loolu ba may raccroché samay ay patron wooma donc ils m'ont humilié en direct suñ ko defoon ci suuf sénégalais du ko dégg yaa moom sa làmb bu la neexee nga ne alburax moo koy teg kenn weddiwu ko bu la neexee nga ne 2 moo koy teg kenn weddiwu ko man maa gën a cuune ci reporter yi xaw ma dara munuma dara waaye billahi barke yonent bi fekk nañu ku mën a maafe ñu lebal ko kànja amul benn làmb bu may demati boo xamante ne leeru ma ni su ma fa jógee dimanche dinaa teg làmb ji man dootuma teg boobu làmb dootuma fa teg sama tànk xam naa nag suma ma bàyyee du leen wàññi dara ñoom it duñ ma wàññi dara ku ci am sa caabi àjjana tëj ko ma dem safara buur loolu moom ma metti sama adduna ils m'ont humilié en direct te c'est Aziz Ndiaye et Baye Ndiaye qui m'ont aci ay dara non man mais grand maa ngi lay maa ngi waaw maa maa ngi lay ziar grand yow moom grand wax dëgg yàlla da suñu doyen di suñu mag wax dëgg yàlla ak yonent bi lépp lu la naqari daf ñuy naqari mais bon je pense pas que xëj na euh, bon c'est maanaam c'est un peu compliqué quoi parce que man xam naa la yow xam naa Baye xam naa Aziz. bon buur non non non buur buur xoolal c'est pas ah, ah, compliqué. Ah, non non non loo xam Baye Baye maa la ko gën a xam maa ko yar xam Aziz Ndiaye maa la ko gën a xam xam man xam man lu wax dëgg te yàlla tax dama la ne hmm. mais bàyyi ndewoon six mois nga koy teg wala six ans nga koy teg ma xam buñ ma wax ay wax naa ko siiseeg wax naa ko paateeg wax naa ko demba man la man maay nekk ci terrain bi man dinaa defak ñoom loo xam ne sama benn patron du ko yëg so contenu maa koy wutal sama bopp dimanche ñu kenn de man la ñu toroxal en direct man man ma ma xamal la waat beneen affaire bi may takk bi may takk jabar bi may takk Ngoné Ndiaye Ndeye Gadiaga la may premier njëkke Ndeye Gadiaga mooy jabaru Masata Ndiaye bi bokk ak Baye Alé Ndiaye Ndeye ak Baye moom laa may premier njëkke c'était en 1998 kon buur maa la gën a xam Baye Ndiaye maa la gën a xam Aziz Ndiaye 1998 may takk Ngoné Ndiaye may Ndeye Gadiaga mi soxna Masata Ndiaye mi ñu tuddee Masata mi moom ak Baye Ala Ndiaye ñu bokk ndey ak baay loo xam-xam-xam maa la ko gën a xam man man mi dëkk ak ñoom parcelle unité 3 sama kër baay laa nekk actuellement nii parcelle unité 3 sama baay mi ngi fi jënd kër 1978 kon man xam naa baay xam naa Aziz je n'ai rien contre eux lamb ji réussir na na leen yàlla defal jàmm làmb ji lépp baax na la leen yàlla defal jàmm yóbbu nañ ko 2S c'est les meilleurs man xaw ma dara munuma dara sañu ma dara waaye dañ ma humilier bu leen ma xool de lu ma neex laay wax. mais yi tapote leen écran bi yéen ñu toog di seetaan tapote leen écran bi balaa résume di daw. nii ma ne nii la te maa ngi maa maa ngi ñaan maa maa ngi ñaanaat encore une fois de plus. bépp làmb buy amati waxuma alburax de que ça soit euh, jàmbaar production Paate production Matar production Rama production bépp làmb boo ma gisati rek demal nga koj TFM di nga ko fa gis. TFM di nga Ndiaye Assane Ndiaye production. xam nga lu mu def mhm. Assane Ndiaye. dafa jaar commercial. dem fay dem fay face à face. dimanche lamb bii ñuy dem nii Assane Ndiaye dafa fay Futur Média waxul sax ak ñun ñun suñu patron ñooñu woon nañu Aziz eh, nañu Assane lii ak lii ak lii la def. Eh, fifi naa dégg naa la. Eh, leneen gisoo gars yi tapote na moom desee mu dañ tapote live bi live bi mooy diis na gars yi tapote waaw tapote na live bi région région ngi daw trompeur sambeen waaw gars yi tapote na ñu ngi samba sa connexion bi connexion bi kenn déggatu la Lam Samba bu dee am waaw tapote leen waaw tapote leen laay bi Kayta waaw merci beaucoup. waaw kon ay dara mel alaaji bi ñu ñëw. mais Samba sa réseau baa ngi daw kenn déggatu la Lam voilà boo mënee dem fu am réseau. voilà voilà merci voilà. réseau bi daw réseau bi réseau bi réseau mm-hmm. ok buur dégg nga ko buur géwal buur géwal dégg nga dégg nga alaaji mu wax buur géwal bu dee yaa ngi dégg waaw xam nga doon expliqué léegi mais xam naa bon xam naa ne xool bi xaw na jóg man xam naa sama grand <laughs> xam nga donc lii sama war teef rek man moom rakkam laay doon damay damay déglu ba mu wax li nekk ci kii rek mais xam nga relation bu yàgg comme ni ko Lamine waxee relation boo xam ne ñun jiitu na amaana suñu relation ku mën a doon donc lépp lu ci mën a am rek wax bu rafet rek lañ ci mën a wax pour ëllëg moo tax comprendre nga du ma ni Lamine bàyyil Baye ak Aziz du ma ni Baye ak Aziz ba bàyyi diggante mag la ay mag la ak ay rak man maa ci gën a tuuti du dëgg Lamine xam na man sama tàngoor xam na sama jikko moom mooy sel boo xam ni suma ma màttee dara ba muy dagg su ma woowee benn wax la may wax buur ma ne ko naam mu ne fa bug lii bul ci waxati ma ne ko dootuma ci wax waaw noonu noonu laa ànd ak suma suma mag la suma grand frère la lu ko naq lu naqari daf ñuy naqari mais nag problème problème mu famille la moom ci famille bi la bokk duñ ci wax dara loo xamante ne xamuñu ko en tout daal Lamine warul am lu ko naqari biir kër Baye Alé Ndiaye. ko am ci Aziz wax rek waru ko am. naa ko nag ci Baye waru ko am ci Aziz. parce que c'est la famille. du man man xajuma ci Aydara xaju ci man Esther xaju ci Papis bi rek Mor Kase kenn xaju ci am déet Aydara <laughs> ñëpp kenn xaju ci <laughs> xaju ci de. ah non man non. xam nga xam a y' a des gens y' a des gens qui ne m'ont pas encore compris. j'ai pas euh. le droit mais qu'on le dise. oui oui la comprendre xam naa non je dis que j'ai pas le droit mais qu'on me le dise. qu'ils me disent que j'ai pas le droit. bi may dem di jëlee accréditation yi bàyyi dafa ma waroon wax ne ma fii ak six ans nga koy teg. na ma na ma ne Lamine Samba ah yaa ngi dem maa ngi lay jox accréditation mais fii ak dix ans nga koy teg. man ma grand su ma la man grand ma grand su ma ma grand su ma déggee dafa mel ne que y incompréhension wala benn manque de communication boobu seen diggante tout se résume dans man pour man quoi ni ma déggee yow nga waxee buur boo nekkee sa biir kër mm-hmm. neexul da nga naan sama jabar lii neexul ay buur buur baa ngi mm-hmm. pousse xale bi TikTok day bañ loolu waaw baa ngi pousse xale bi ah ok waaw waaw waaw waaw yaa ngi dégg da nga naan da nga naan da sa jabar ah lii de neexuma sama kër bul ko def hmm. mais bu fekkee neexu la hmm. wala amu ci droit nga bàyyi ba mu def ko ba pare yow yaa def erreur moom deful erreur hmm. mais man dama daan gis sax bu fekkee làmb am na wane wuñ ko télé wane wuñ ko fenn mais après dinañ leen la min wi nga koy teg wala lii nga koy man kin ma la diis man aw sax nu ñuy wax ak ay Cissé ay affaire yooyu parce que man presque lu ñu soxla lu ci bëri ci man mii lay jaar TFM. bala Malick Thiandou foofu dafa am question bu la bëgg a laaj comme que lamb ji euh, pay yéen yéen ñi nga xam ne yéen a yor télé yi yor site média yi kan moo leen di informé ban heure ngeen di teg lamb ji wala kan soo leen jëlee information promoteur moo leen koy wax wala yéen en tant que reporter yéen a koy waxante seen biir wala. loolu laa promoteur bi moom moom événement lu ko neex moo fay am. waaye ñun reporters yi ñooy nekk ci terrain bi ku mel ni buur patron de presse la il n'a de contre à rendre à personne mais man am naa ay patron man bi may dem di jëli accréditation yi tàgguwuma sama benn patron man maa taal sama moto dem jëlal sama bopp accréditation mais dama ne moment boobu rek dama bàyyi ne ah grand am billet yi maa la ko may accréditation baa ngi nii mais amuloo droit teg ko tey maanaam gannaaw suba nga koy teg bu boobaa ma sañse rafet yéeg ci kaw tribune bi parce que man làmb ji dix fekk na ma lamb ji dix heures di heures du matin fekk na ma lamb ji dix heures du matin fekk na ma lamb ji dara méttiwu ma làmb ji réussir na le maire a gagné franchement sénégalais yëpp kontaan nañu mais buur waruñu woon xaar ba ma commencé en direct ñu may dagg en direct di couper signalu TFM en direct grâce à moi ça m'a fait mal buur géwël buur géwël léegi yow yow buur gis nga dégg nga alaaj Mami li mu wax waaw bu fekkante dafa am yeneen kàddu yoo ci bëgg a yoo ci bëgg a sànni sa micro micro bi waaw micro bi taalal taalal mooy li ma wax ay dara waaw man mooy sama kilifa mooy kilifa Baye mooy kilifa Aziz est-ce mën a bi nga waxee noonu ba xam. Aïdara yaa may dégg. grand bi dama ni man mooy sama kilifa mooy kilifa Baye mooy kilifa Aziz su amee lu ko naqari loolu ko naqari daf ñuy naqari suñu juumee te war ko jéggalu man suma ci bokkee dama ko naan grand kat dañoo juum yaay suñu grand du dëgg nee man buur laax maa gën a dëgër bopp ci àddina ci guerre bu ma dugg moom mii su ma woowee ne ma buur allo buur benn wax la ma allo buur ma ne ko grand Lamine wax bi ma la dégg nga ci wax bul ci waxati keroog laa ciy pare te loolu yombul ci man sama waa kër xam nañu loolu maintenant euh, nit bu dee sa la wala mu kilifa su meree doo taxaw di xam meram mooy dang nga koy wan ne sama kilifa nga rek man maa juum. parce que direct dafa metti ki toog plateau di def une émission en direct ñu dagg ko neexul man animateur xam naa mais diggante Baye Lamine ak ak Aziz waay waay ay dara suma ci waxul lu baax ak lu rafet lu ma ciy wax lamin mooy suñu mag ñun ñëpp ku ci nekk ci ñun ameel nga ko bés. ñun ñoo ko ameel moom ameelu duñu daara la bi ñuy nekk ay booy di rapporter on rêvait d'être wala di devenir un Lamine Samba un jour te boobu c'était pas évident du dëgg donc pour man ni ma déggee Lamine waxee ko man mal entendu man laa dégg man mooy Lamine ne savait pas lamb ji xëj na full perte la heure sangam lañ koy dugal heure sangom lañ ko Lamine ne le savait donc amul leneen noo ko mën a tuddee lu dul mal entendu loolu nga ko mën tuddee bu dëgg Lamine xamante na ak wéet nañu seq loo xam ne man xaw ma ko yow xamoo ko keneen ak keneen xamu ko loolu mbiru biir la donc daal gannaaw ñoo ngi lay jéggalu nous vous disons excuse nous baal ñu àq jéggal ñu ñun say rakk ñoo juum te yaa suñu kilifa yow lañ ko sañ def man maay taxaw ci palaasu Aziz ak palaasu Baye ne la grand Lamine nga naa man la baal ñu àq ñun ñoo juum ñun ñoo def erreur lii mooy wax ji amul leen Lamine c'est notre doyen yaa yaa leen ku ci nekk ñun bu la yëkkatee ngay jug bu la yebalee da ngay dem bu la santee da def c'est ça la réalité donc ñun la grand ñun la ñu def ñooy jéggalu grand ñun la